jafe-jafe fi mu ne nii en global laay en général <coughs> et que je crois que la préservation des emplois je crois que état bi ci loolu war na ci gën a góorgóorlu parce que emplois bu ñu dagg rek day yokk taux de chômage bi euh, dagg contrat pour à la suite au futur caser ay militants ñi nga dagg seen i contrat bàyyi leen ñu dem nekk ay chômeurs nga caser ay chômeurs yu nekk ay militants frustration bi nga xam ne chômeur yële moom la amoon ba ànd ak yow ba nga falu chômeur yi nga créé ñoom it danañu wuti keneen koo xam ne dana taxaw ba ñu ànd ak moom xeex loolu moo tax boo jiitee dëkk revanche amu ci fayantoo baaxu si tous les citoyens sénégalais sont le cas de Eiffage Eiffage en 2023 rek amoon fi contentieux ak fisc bi ko fisc andilee nekku lii nga war a fay da koo bañ dem ci yoon ñu dem ba si loolu commence tegu en règle Eiffage bi tey moom mooy topp état du Sénégal bi nga xam ne moom mooy fisc tax état moo ko toppoon ne ko fay ma bor tey Eiffage bi mooy topp état ne ko fay ma bor <laughs> c'est ça c'est c'est ça dëkk du wax ju bari moo koy doxal. dëkk du émotion dëkk du populisme gérer un état c'est une réalité des choses sur le plan géopolitique gérer un état c'est avoir la maîtrise et la notion des finances publiques et privées gérer un état c'est avoir d'abord l'apprentissage ba maîtriser soo nga am ay collaborateurs mais ñii lii ñuy def soo xoolee bés bi dafa mel ni dañoo nekk di fay mer di di ko mer j'avais écouté le ministre de l'éducation nationale Moustapha Guirassi invité par Maïmouna Ndour Faye cette TV ne ko li ngeen leb tollagum na ci mille cent cinquante milliards ci bor xaalis boobu fu ngeen ko dugal ak fu ngeen ko jëme Moustapha Guirassi ne ko soixante pour cent ci dette intérieure bi bor bi nga xam ne moom la état amal entreprise yi xaas bi ñu leb foofu la jëm Moustapha Guirassy moo wax dañuy leb pour fay bor état buy suul bukki du suulu bukki war nañoo poser la question où son les compétences et les expérimentés yi nga xam ne en matière de finance xam nañu naka la ñuy def ba état war a mën a liggéey te bañ a def suul bukki suulu bukki waaw léegi Moustapha Guirassy ma waxoon ne 60 pour cent ci 1150 milliards yi ñu leb dañ koy fay bor Moustapha Guirassy moo wax un ministre de l'éducation nationale nommé par le premier ministre Ousmane Sonko nommé par Bassirou Diomaye Faye le président de la République ça fait même pas un mois kon mille cent cinquante milliards yi bu dee génne na ci 60 pour cent fay ko ay bor kon je crois que tey jii nga ne bor bi ñaata la plus de deux cent millions deux cent millions milliards plutôt. deux milliards moom la ñu yoreel euh, société yooyu yëpp. waaw léegi ak ñi nga xamante ne de cent milliards donc nañ ne près de trois cent milliards exemple. Mhm. waaw léegi trois cent milliards moom amal société yi. Mhm. état moom la war a fay. Mhm. Moustapha Guirassy ne soixante pour cent ci bor bi ñu leb mille cent cinquante milliards yi dañ koy fayee boru société yi xanaa kon Moustapha Guirassy ay waxam amul cohérence kon su fekkonte ne loolu mu wax noonu la demee. kon tey duñ toog fii Eiffage di génnee mille trois cent agents sénégalais di leen di au chômage parce que nee na mënatul dem parce que état fayu ko kon Moustapha Guirassy discours bi la doon def et mu war a jot nag yoo xam mille cent cinquante milliards yooyu fan lañ ko dugal pourquoi Sénégal leb ko ci la lañ ko lebee CSE CD CD CDE e. nee nañ ca lañ bokk danañ si duggi boo deful nag parce que ñoo bokk ak Eiffage même problème. mu ñëw fekk si. ndigal gi le premier ministre joxe woon ak le président de la république nañu arrêté mboolem luy construction kon c'est le BTP qui est ciblé waa léegi BTP bu ñu ciblé ñu arrêté seen liggéey ñoom ñëpp c'est le chômage à flot moo tax on doit avoir un état bu ñuy jox orientation ak sa vision pour ñu am fan lañ jëm moo tax chaque fois je dis que tant que la déclaration de politique générale état bi defuñu ko ci cacophonie la ñuy dëkk ak ci incohérence mais am na ci loo xam ne effet de populisme boobu dafa war a dàkk utiliser nañ ko benn côté mu servir leen ba yegsi au pouvoir mais arrivé au pouvoir avec la réalité des choses waratu ñoo jël populisme di ko utiliser ci la réalité du pouvoir langage de vérité avec les sénégalais un plus un égale deux moom moo leen di mën a dimbale pour ñu mun a xam fan lañ jëm mais tey bu fekkonte ne Eiffage teguwul ci yoon. suba ñoom ñëppay taxaw ne tegul ci yoon te buñ fexee nag ba Eiffage def dépôt de bilan <laughs> mais on va parle plus de mille trois cent emplois dañuy toxu dem feneen entreprise yu bari ak opérateur économique yu bari ñu ngi gën di dem parce que lii le président Bassirou Diomaye Faye bu ko continuer doxalee ni Sénégal dina asphyxier les entreprises privées war nañoo fay impo c'est normal et obligation la mais bu fekkee mbirum impôt bokk na ci liy xoj entreprise ba mu war a def dépôt de bilan ba yóbbu les citoyens sénégalais au chômage. Ça mais état doit avoir des mécanismes yi muy mën a amaduwee wala ñu muy mën a waxtaanee ak les entreprises qui doivent payer les dettes les impôts ne leen kaa ñuy waxtaan si nii ak nii ak nii mais état warta bras de fer avec le privé nii avec le public mais avant-hier note fi note génn. ministère de l' énergie 44 contrats CDI yoo xam ne dañ koo dagg CDI contrat à dure indéterminée dañ koo dagg tapit cause yi kenn xamul soo demee port on parle de 700 emplois même bu dee seen contrat yegg si na à terme. ñam cité ah, si cas boobu itam il faut que ñu def ci attention parce que ci ñooñu am na ñoo xamante ne depuis 2013 lañ fa nekk. waaw moo tax moo tax ma ne la même bu dee ñoom ci li ñu wax. ne seen contrat dafa yegg à terme moo tax war nañ ko xoolaat 700 emplois boo ko yóbboo au chômage c'est 700 fois 3 ndax papa yaay doom la. exemple bi gën a daw papa yaay doom fois 7 3 fois 7 21 près de ñaata personne nga yóbbu ci xiif nga jël mille 1300 agents papa yaay doom ñaata mil ñaata milliers de personne nga yóbbu nga jël CD yi nga dagg ñaata millions ñaata nga yóbbu. ak yeneen boo demee empêche amoon na nga dem promise maanaam levier yi nga xamante ne tey jii moom mooy levier yi nga xam ne moom la président Macky Sall tegoon pour création d' emploi même bu am na ay sooxe même bu dee c' est des emplois mais je crois que des emplois qui ont été en bonne est des citoyens sénégalais et Eiffage ci li wax nee na moom ci boppam bu gañee marché état te noonu lay demee sax moom mooy def cinquante pour cent ci poche boppam. te lu ci bari ay prestataire lay jël état de jël ñoo xamante ne dañuy def sous-traitance. très donc tey jii ñu ngi cible ay entreprise ñaar nag laay mën a jàpp ñàkk mën walla ñàkk xam foo jëm moo tax xëy na peut-être lii mën na mais bu fekkee ñàkk bu fekkee ñàkk mën kese moo tax secteur privé bi di jooy secteur public bi am si ñoo xam ne ñu ñu ngi yuuxu. su fekkee ñàkk mën kese la Sénégal fi mu jëm baaxul et je les conseille que ñu xoolaat ñoom seen environnement ak seen biir réew mi ñàkkul ay borom xam-xam yoo xam ne ay experts lañ ci secteur finance wala secteur euh, euh, euh, public sur tous les domaines mais Sénégal toll na foo xam ne fi mu nekk nii ngaal yi gars yi di jël tout le temps on en parle on en parle on en répète. ba léegi amu ci benn déclaration ba am na le président de la république Bassirou Diomaye Faye wax na si masawu leen c'est quoi le problème te lañ doon wax avant opposition moo tax tout le temps ma wax leen rek seen waxi démb yi wallaay bés bu ne mu rattrapé leen bés bu ne mu rattrapé leen mais nañu xool le secteur privé le patronat na état du Sénégal xool nu muy waxtaanatee ak ñoom parce que fi ñu jëm baaxul.